kon guitariste boo xamante ne rek bu siw la waaye mu nekkoon koo xamante ne rek euh, ku ñuy dégg la ci groupe Dande Leone moom nag mi ngi gane si àdduna ci atum 1955 ma nga fekk baax ca diwaan bu Podor euh, ci côté nord bu Sénégal ci dëkk bi ñu naan euh, Guédé nekk na koo xamante ne rek doon na ànd ak kii di Baba Maal mi fi nekk artiste mu nekk nag doomu géwel ci Tukulóor waaye nag mbir mu nu mel rek da koo daal di woon donn ci wàllum musique mu nekk nag ni koo xamante ne rek ku ñu ràññee woon lool la doon xarit ci kii di Baba Maal moom moo daal di rek dëddu àdduna équipe bu net bi TV yëpp ña mastawu eh, ki ci boobule tiis di ko ñaanal yàlla yërëm ko te xaral ko àjjana di jébbal njaar artiste international bi eh, di Baba Maal rawatina nag monde musique bi yëpp di ko ñaanal yàlla rek xaral ko àjjana jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàtte abonné bés de notification yi ngir dara bañ leen raw